internaute Senego TV salaamaaleykum nouvelle bu naqari nag lañu am en route bi ñu soo génnee rek ci autoroute Bambey bi lañ tombé fii benn accident bu metti daal nii rek la benn car Ndiaga Ndiaye daanu jamono ji nag sapeur pompier mu ngi nekk ci lieu bi comme niñ leen koy wonee nii rek eh, comme niñ leen koy wone rek ay blessé lañ gisagum jamono ji sapeur pompier mu ngi ci lieu bi nag ji def liggéeyam ngir jàppale blessé yi leeraguñu exactement ndax mun nañ confirmer ñaanuñ ko yàlla tamit s'il y a des comme ni ngeen gisee kaar bi ci kanam lépp moo daal moo daal mokkat moo daal yàqu pneu yi ñaari pneu yépp tamit ñaari pneu yëpp tamit euh, dafa ju ci kanam oto Ndiaga bi dafa daal dafa daal di dëñ xamuñ nag exactement accident bi parce que ci kaw péage bi la boo génnee sorti Bambey sorti Bambey ñii ngay gis nii affaire yëpp ni mu demee ak yooyu noonu kii. loolu ñu ne maa ngi faral di wax nii kii. waaw. témoignage mu waxal nu rekk accident bi nu mu demee salaamaaleykum. waaw na waaw sant yàlla rek alhamdulilah ah soog bi moom ñun fii la nu fekk nu taxaw oto bi bi mu jógee fee panu kanam bi moo toj bi mu yéeg cot bi la panu bi toj chauffeur bi di bëreeg moom jàmbaar la lool bi mu ñëwee ba fii nag daa dem ba mën a téye oto bi ci la dale ci barayage dal ci jégg daanu mu daanoo xalam am na benn kii bu nekkoon ci suuf sax benn nit bu nekkoon ci suuf kooku moom sonn na lool am na ay blessement yu bari moom waaw ah man fii laa dëkk reefan gi laa dëkk waaw dama doon doxantu nii rek yem mu yem ci ah non amagul moor moom waaye am na blessement yu metti moom waaw waaw amagul am na blessement yu metti waaw. reefan la waaw reefan la pont bi ci biir reefan boo génnee xombal pont bi ci reefan foofu la ak soog bi amee bu fe waaw waaw waaw xombal mooy reefan foofu la soog bi amee nii ana safar bi moom yóbbu nañ ko yóbbu waaw waaw yóbbu nañu ko sonn na lool salaamaaleykum. waaw ah, sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw ci oto bi lañ wàccee xam nga rek ndogalu suñu borom moom kenn mënu ci lu bari. moom pneu avant bi toj na def na es wàcc na ci suuf waaw moom am na ay blessures yu métti daal yu métti métti chauffeur bi ak ñeneen ak ñeneen man moom sama moo xaw a tëccu ak sama tànk mi ni gisoo xaw a xooreeku ni mais daal alhamdulilah sant yàlla moom kenn ñàkkul bakkanam mais moom dogalu suñu borom moom saa su da koy nungu quoi xam ne yàlla moom mooy dogal lépp alhamdulilah sant yàlla daal moom daal métti lool mais moom sant daal bu baax sant bu baax avant avant accident bi di am seetluwu leen oto bi amoon na ay problème wala ci côté vitesse excès de vitesse wala aussi sentir ne pneu dara mu ngi ci te normalul sentiru leen non man moom sentiruma ci man moom wàllu oto am na lu ma am na lu ma suñu borom dénk mi daw moom xam nga rek oto Sénégal moom a xam am na ci ñoo xam ne événement bi rek moo leen di génne paa bi sax bu ñëw ba apéage ba yéeg xamul yoon ban la war a jaar après xam nga rek ci lañ ko guidé mu yéeg waaw di conduire nice mais nag suñ borom moom mooy dogal quoi sant yàlla rek alhamdulilah sant yàlla rek alhamdulilah waaw comme ni ngeen ko gisee rek ñooñu ñoo nekk ay blessé kii tamit xaw naa age dafa jóge ci màggal ba rek doon ñibbi këram wante nag jamono ji sant yàlla amul benn moor boo xam ne signalé nañ ko ci accident bi demee fan ngeen man eh, maa ngi jógee Casamance. Mhm. ma ñëw Touba. Mhm. man ay Kéba Ndaw. Eh, ngi bugg a dem ni Tiwaawul. Mhm. waaw soo ma amee fii accident. safoor bi ah. waaw moom sonn na moom parce que moom lañ jëkk évacué ñun bokk nañ ci ñi euh, jëkk a ñëw kenn ki xamante nañu moom laa ko ne ko kee bi moom moo gën a blessé fexeel yóbbu ko te it diggante bi def na fi njàmbaar dafay fekk nag ne su yàlla ñëwee yàlla ñëw na kenn mënu si dara parce que moom dawal na fi dawalu mag ñun bi ñu ñoo ngi foon fii di ko seen ba panne bu tojee la commencé def yee mais jëmi fii moom amul doole ju tey oto loolu rek moo ko yóbbu encore fii boo boo xasee wàcc rek dem yoon mais fu ñëw nii boo fekkee xam nga histoire di xam ne bii histoire bokk na ci histoire yi la dogal du tëyeef parce que magal ñoolaam dem la nelewul moom nelewul parce que oto bi bu muy daal moom xam na ne oto baa ngi dem mais mënu ko tëyee loolu rek la waaw loolu daal la mais moom beleesement moom bari moom moom booy xool ñëpp a moom oto moom ñu mosaate woon xaw ma ñaati nombre la mais kenn ku ci amul beleesement amul ci moom nag moo ci gën a son moom ñi ci des ñëpp mën nañu wax mais moom mu ngi wax sax parce que boo ko laajee dina leen man maa ngi nii maa ngi la gis boo ko ne yaa ngi may gis mu ne la waaw mais boo ko xool rek nga xam ne Blaise moom lañu njëkk a ci évacué hôpital bi fii ñoo ko évacué bu ko xombol waaw xam naa ñun ñaa yàlla def ci jàmm rek ak salaam loolu daal la waaw